bokkeen tax na Yatal Vision dal leen ak ci xibaar la ca gën a fas na ci accident bu am foofale ca yoonu Kaolack wa ginnaaw bus boo xamante ne bi mu ngi doon jóge foofale ca jaw ba yàb ba fees jàll la daal di puno ba am jafe-jafe nag mu daal cay jota amee ay gaañu-gaañu ak ñett ñoo xamante ne bi jot nañ caa ñàkk nag seen bakkan di accident bu métti boo xamante ne bi mu ngi xewee nag foofale ca yoonu jawbe boobee ca wetu kawlak kii nga xamante ne bii nag moo di Iran Ndao ginnaaw nag biñ ko dékkee li nga xamante ne bii moo di micro moom mi nag di Iran di ko ci leen li nga xamante ne bii mooy xew-xewu jamono ji fii ci réew mi tolluwaay bu réew moom la bokk na ci nag imam bii di grande mosquée moom nag ginnaaw bi nga xamante ni bi waxoon na ne képp koo xamante ni dee ci euh, manifestation yi da ngaa xaru loolee nag Iran Ndaw daal di na koy tebbi nee na nag li xamante ni bi moo di wàllum xaru ak dem safara moom mm, nan ko bàyyee mbirum yàlla ndaxte safara moom yàlla moo ko moom kenn moomu ko kon nag diw day dem sawara wala diw day dem àjjana loolu nan ko bàyyee mbirum yàlla kenn moomut sawara bay ca yóbbu kenn loolee mbirum yàlla la te yàlla mooy àtte di dof lu ko soob ndaxte kat nee na mi ngi xam le ne ñi nga xamante ni dañ def lu bon sax day nekk sa biir kër nga mën ko accepté rawatina yàlla mi nga xamante ne bii moo ëpp ñëpp njéggal loolee nag ki ko yëkki ne ay kàddu di Iran Ndao mi nga xamante ne bii oustaz la fii ci biir réew mi ñu bëri ràññee ko moom ab taxawaayam ci biir réew mi moo xam le lu ni mel